ñaari fan de ñu daal di koy jox ñi nga xamante ni dañ leen wax ñu dem daal di saytuwaat seen ay mbiri parrainage mbir moom li ko taxoon jóg mooy wàññi mbër yi bokk ci jogante yi ñu jëm waaye mu mel ne dafa dara indi ay jafe-jafe ci biir dëkk bi ci ñenn ñi nga xamante ni ñoo dëkk Touba lii lañ ci xalaat parrainage moom depuis ma ko déggee laa xam ni problème dina am parce que li tax problème dina posé mooy candidats yi bari nañu xam nga presque quarante quelques candidats moom bu ñu bëggee dem élection kooku dina am jafe bu muy indi ci réew mi ñu fekk ko ci biir liggéey mu jiite ab l'école kii lay jàpp ne parrainage bi dañ ko war a saytuwaat bu baax a baax. bari na waaw bari na coow bari na xëccoo candidat yi dañu bari président nag du n'importe kii moo koy war a nekk am na ci ñoo xam ne xaw ma lan lañ bëgg mais ñoo gën a xam ne seen chance pour nekk président lu néew la. ba ci penn dellu si di wax ne. Touba ak li ko wër ndar nañoo amaat jafe-jafe yi nga xamante amoon nañ ko ci jongante législative yi fi amoon. ci population Touba man sama gis-gisu bopp Touba moom xaj na mën nañoo def élection waaye dem élection ba la amal législative dafay am ndax kon Touba li fi nekk nun xam na ni moo fi ne ba tey. ginnaaw ci loolu ki di yokk ne Macky Sall mënut a jàll premier tour yi buñ ko tegee ci yoon. na jàll premier tour mën na mën na nekk mais hmm, c'est un pari je ne lu lu doon lu jafe la lool. juróomi mbër lañ jàpp gum dinañ bokk ci jongante yi ñu jëmm ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen a wax ñu dem defaraat seen i mbir ci wàllu parrainage boobu mu nekk loo xamante ni daanaka ñi dëkk Touba yiteelu leen.